ma tante ki ma nekkal dëkk Dakar jël na te elle a plus de 75 ans elle est diabétique elle est hypertendue jël na AstraZeneca bi dara jot ko ba ma de wàccee dem fekk ci kër ga di soo fekk naa jël na ko pare exemple la kooku war ni ñi xamul néna la ñi xamul ñoy wax mais vaccin yi dara nek ci te vaccin yi jël ko mo gën bañ ko jël vaccin bi jël ko mo gën bañ ko jël donc dañuy ñaax population yëpp ñu dem jëli vaccin bi ñun daal def nañ ko te ñu ngi ñaax ñëpp ñu dem jëli vaccin yi ba pare nak ñu continuer respecter mesure barrière yi di tak masque fuñ ñu toll di raxasu di utiliser gel hydroalcoolique bi di raxasu ba set ak di respecter distanciation loolu bu ñu ko combiner ak vaccination bi rek léegi mbas bu jóge fi